asalaamualeykum dama ne benn wax rek moo am benn wax rek moo xew benn wax rek moo ñu yitteel mooy réew mi dañ ko bokk mu am ku jóg ne moom moo ci ëpp wàll fàtte ne dañ ko fal

xam nga lan moy sen pas-pas réew mi dafa commencé di yé ñi nga xam ne que ñooy citoyen pour que képp ko xam ne foo mën a nga xam ne que yàgg sa morom yéna yam ci réew mi da ngay dénkaane rek citoyen yoyu la bëgg waxal tay yeen xam ngeen sen système mané yeen xam ngeen système parti au pouvoir lan lañuy def dañuy sàcc xaalis xaalisu réew mi xaalis bi nga xamee ne que ñun ñëpp ñoo ci bokk yam ñu jël ko xiifal leen ba ngeen xiif ñu ñëw ak xaalis boobu jox leen ko pour ngeen sol ay t-shirt nekk ci ay seen ay meeting dama ni buñ leen joxe xaalis boobu na ngeen ko lekk dana leen lew ndax xaalis boobu mi ngi jóge ci état bi ndax ministre ñaata la mën a am par boo ci bëggee dundal sa njaboot dox ci ay sa ay jéego yi nga xam ne que mooy doxal sa àdduna kon munoo am alal boo xam ne que di nga fay dix mille personnes cinq mille francs wala deux kon nag ku leen jox xaalis nangeen ko lekk ba pare ngeen jóg taxaw taxawaay bu mat sëkk taxawaayu citoyen mooy lan ngeen tere leen du ñu dugg ci dëkk yi

xala mandir bàjjo xam nga lan lay do deglul deglul du du ay tasu rek de fayda la fulla la moy sa buntu keur ku ñew bëgg violer sa buntu keur bu la né xala mandir bàjjo loo koy wax kon nak ki nga xam warul bok deug gënal leen ko lool ba paré jëfé ko xam ngeen jëfi moy lan du duggu fenn les jeunes prenez vos responsabilités Je les une responsabilité ni ma sama responsabilité ni leader je jëlee responsabilités. responsabilité l'histoire du Sénégal va s'écrire Abdoulaye Abdoulaye Wade du dem ci élection nous sommes dans ko élection yi Mandir Badjo Khala Mandir Badjo slogan vous waree avec ces milliards qui sont flous ces milliards qui sont flous pour vous donner ko Khala, khala,